guddik fanweer ku ci julli juróom benn rakka rakka bu nekk nga jàng ci faatiya xul huwallaahu fukki yoon nag benn loolu lañ ci jàng ñu baamtuwaatal leen ku guddik fanweeral ko ku ci julli juróom benn rakka rakka bu nekk nga jàng ci faatiya ak xul huwallaahu fukki yoon ak benn loolu mooy li ma rakk yi ni ki war julli mbokk yaakaar naa foofu la ñuy yem ci weeru koor yi di leen ñaanal yal na yàlla nangu seen i jaamu yàlla nangu suñuy jaamu yàlla yal na yàlla dëgëral site bi ngeen àndaloon mooy sunu actu point com ñu àndoon ceeg naa Njaay ak Soxna Awa lan ci àndaloon ci wàllu réalisation bi aw Ndiaye ànd ci nag ak ki nga xam ne mooy montoor bi muy Serigne Cheikh Gueye yal na yàlla defar seen i mbir te defar suñu mbir yal na nu yàlla sëmbartal ci géeju yërmande te yàlla defal na suñuy jaamu yàlla mu nangu ko nangu suñu weeru koor ñu leen di jox yeneen i jaamu yàlla yeneen i naafile ci weeru koor déwén incha allah yal na nu yàlla may ak fekk ak tal wasalaamaaleykum wa rahmatullah.